Hey, boy kaf tuba. nagu korgi gi ak. yeah pulo balna lak la ak nga balma ak suñu borom boole ñu jéggal ñu teew bari. amin amin way. amin boy kaf Salam alaykum, pulo na def. malikum salam. zog nu mi na def. ah pulo na koor gi. ah koor nirek ni rek andak tangor bi ni. nii. ana si jëkkër ala suluk njaay suluk. sulux mooy kër ga moom de wooree nelaw rek lay def ak ragal xiif waaw moom du fay sama ujur naa jiit sama ñaari junni yi du mu ko fay def bu ñëwee fii ànd ak kaali mu lem kaalis def dem yoonam kaw ma lu def ci fay ma waa de yow sama jëkkër bi kenn fekkee wu di waaw kenn fekkee wu ko waaye tiriyaans jëkkër bu tiriyandaasee dama wax ni dee tiriyandaas eh Poullo eh eh mère wax na la dëgg yow tamit ana sutura eh pexe booy café Touba ma la noppi yow seytaane nga rek eh choc nu demal kër gi léegi nga wax alaaj sulgu mu fay ma suñu kaalis léegi léegi léegi léegi. pare. eh du dangay jënd man maa jaay suñu boutique léegi jaayuma la demal sa kër nga wax alaaj sulgu mu fay ma suñu kaalis. yow Poulon yow nag mag bu réew nga. waaye xaaral ma dem wooyi sama nijaay. di xam nga ko bu baax ancien combattant la bu ñëwee di xam ne lépp dëgg ah si jëkkër agent ah, combattant demal nga wax maa ngi leen di xaar di ngeen kam yéen reewoo leen maa ngi leen di xaar. yow hey booy kafe Touba déglu fii yow laa waxal na fexe bu agent ah, combattant ñëwee fii moo koy nokk bu laata dégg lan waaye man kay sama yoon nekku si dinaa war ba heure bii di nekk fi di at xeex. Assalamualaikum. pulo he ala shuluk abul salam alaikum malikum salam fay musum kalis laba bugum ben ciow espèce de tiriya bu bon bi satcha bi e ya pulo xam nga yow da nga rew yow ya sama jaw na la fi meuna ñëw di ndugg ndogu nga nek fi di yak sama der he yow ya da nga buri wa kom gewel nga nek fi di wa dama kiif bugum wa fay musum kalis mo yow kay meun nga nan ndox bo waron di nga nek fi di ma jëw war ba di yak sama der

bu la tax dépasser les limites bu leen ma téye eh bu leen ma téye bu ma kenn téere bàyyi leen ma. yow soo génne sa boutique bi léegi léegi ma duma la. man ngay waral waa taxawal foofu kaan ma man de taxawal taxawal. ana nga ah? eh eh eh jaasi weeru koor. xaral ma ñëw yow. hey ancien combattant taxawal bul daw taxawal ma daggal sa dagg taxawal ma